tey Louga ngir lancer deuxième caravane bu service public ginnaaw bi ñuy lancé daaw bu Fatick Kaffrine ak kaw euh, Kaolack tey ñu ngi fii ci Louga ngir lancer la deuxième édition nekk na aussi caravane boo xam ne caravane bu am solo la parce que dina tey ji dimbale ñu nga xam ne ay fonctionnaire lañ ñàkk a dem ba Dakar ngir rek am euh, xam seen dossier fan la toll donc dañoo ñëw déplacé avec toute l'équipe du ministère pour aider les fonctionnaires ñu toog fii xam seen situation d'avancement dossier loolu nag bu amee dañ koy gërëmee le président de la république Macky Sall mi nga xam tey ji moom moo lancé woon le PAMA jox ñu aussi comme feuille de route ñu gën a rapproche administration bi des administrés c'est-à-dire que aujourd'hui ko gën a wàccee ci suuf nit ñi gën a am accès ci administration bi bañ di dem ba dakaar ngir rek benn dossier loolu je crois daaw ba léegi madame la ministre mi ngi ci mu waraloon daaw mu lancé woon la caravane à Fatick et depuis lors je crois bii mooy suñu ñeenteelu bi relais bu ñu installé à à Louga Donc vraiment aussi naa ci jaar pour pour pour remercier le gouverneur de la région qui depuis lors mu ngi jàppale jox ñu local boo xam ne local mucc ayib la def ci tous les équipements nécessaires ànd aussi ak madame le gouverneur nga xam suba léegi mi ànd ak ñun dañu jàppale aussi dañuy dem mee ko bi par pour pour que liggéey bi nekk xam nga souvent da ngay dégg ñu ñaan man déposé naa kayit mais bu nekkee day da ngay wut léegi liggéey ci fonction publique aajuwul déposé kayit da ngay ubbi léegi benn euh, plateforme boo xam ne si ngay bindu nga am numéro ëllëg bu ñu recruter. fa la ñuy basé pour mën a recruter donc loolu aussi ñu bëri xamuñ ko laaj na tey ji aussi ñu toog fii ci ci ci Louga expliquer nit ñi ne léegi nii la mbir mi doxee bu ñu aussi demee dina am un agent qui va rester ici au niveau du bureau relais pour dimbale xale yooyu ñu mën a bindu sur la plateforme ba am seen numéro comme ni ñu ko demandé au niveau de la fonction publique